police baa ngi oto police baa ngi daw sax di arrière parce que gisandoo si image yi yéen ko gisandoo oto police yaa ngi reculé pour daw parce que oto police yaa ngi reculé pour daw parce yi ne leen du fi jàll. ko gisandoo la police est en train de partir parce que patriotes yi ñoom ils ont montré leur détermination. Les images sont claires et nettes. Il y a des gens militaires ici la guerre. Moi j'ai libéré, je la libéré. Mhm. loolu moom amul ma dem te ñëw. Ousmane mu leen jaral. man Edouard mhm. man Ousmane Sonko moom taxul sax ñuy wax. dëgg la man man c'est le Sénégal moo ma ñor. dëgg la kuy loo ku incarné loo xam ne pour Sénégal la. luy jëmale réew mi kanam man kooku moo ma ñor. est-ce que comprendre benn appel laay lancé. celui-ci mhm. laa koy lancé quoi. même tuuti celui-ci ah, laay lancé ah, ah, benn appel. parce que seen doom la ñu nar a sànq. armée bi boo xoolee armée bi ñu ñëpp ëpp bu ay sidis lañu mmh. nañu am fulla fayda xam ne nag seen doom bi ñu ko sànkee ba xam ne sidis yi mmh. duñu nitu dara mmh. les toutes les sidis nañu jóg waa Casamance ñëpp ñëpp nañu jóg man bi je suis je suis né ici grandi ici à Thiès sidis à 100 pour cent et pare naa pour jaay sama bakkan comme nu ma signé sama papier vert comme nu ma signé sama papier vert en 2014 dans l' armée dem zone sud libéré zone sud dem zone sud libéré zone sud xeexal Sénégal. Mhm. donc moom laay xeexalee Sonko. Mhm. mais du Sonko laay xeexal Sénégal laay xeexal. da nga jàpp ni jàpp Sonko mën na menace déstabiliser le Sénégal. dina ko déstabiliser bu ñu ko jàppee Sonko bu ñu ko jàppee ay ay bakkan la ñuy jaar Bassirou ñuy wax ak moom ndax xam ne nag lu mu xoolal laal na la laa laalaate. laal na laalaate gis nga Macky Sall dama taxaw la dama taxaw bokk ñi di ko xeexal man bu ku dem ci archive bi na gis.